oustaz waaw. man nag dafa am baat yu may dégg ci dëkk bi trop ci daara ji. Mhm. mooy parrainage. Mhm. ñi jàngul tubaab te nekk ci àll ba. Mhm. dañuy dégg parrainage parrainage am na baat yoo xam duñu ko xam. question bi itam doo xam lu mu mën a doon. léegi nag ma ma bëggoon nga nattal ma coowal politiciens yi ni coow li bare nii ak euh, mer mi. ak demu demu ak demu ko premier ministre démb ci assemblée bi waaye nag mooy jëkkat ci parrainage bi incha allah bismillahi rahmaani rahim subhaanaka laa ilma lana illaa ma allamtana innaka antal alimul hakim parrainage hmm. dañ koy laaj parti bu bëgg a bokk ci élection yi hmm. mooy nit ko wax ne man damaa bëgg nekk président de la réew mi hmm. réew mii di Sénégal dama bëgg a fanaani palais ngeen jox ma seen programme réew ma defal leen njàng mu mucc ayib defal leen éducation bu mucc ayib def jàmm ci réew mi climat bu paix bi ma indi ko xale yi am liggéey sécurité am ma defar tali euh, yaatal dakaar décentraliser dindi embouteillage bi ci dëkk bi roñ mbalit mi yi defaraat daara yi samp franco arabe yi yokk lycée yi ak université yi loolu laa bëgg ngeen def ma ko loolu laa leen bëgg a defal penc mi ñoo lay wax ne ah loolu mën nga ko <clears throat> nga ne mën naa ko ñu ne indil lu koy firndeel nga ne lu koy firndeel ñu ne da ngay fexe ba indil ma nangami signature ñu xam ne boo demee élection yow da nga am minimum cinq pour cent wu xeet wi loolu mooy parrainage mooy mbooloo moo xam ne ñoom ñëpp jàpp nañ ne seen signature ak seen carte d'identité ak numéro yi mi ngi ak yow <coughs> loolu mooy parinage macha allah. dégg beneen bi ñu ne la. Mm-hmm. ginnaaw yi nga wax yëpp yaa ko bëgg def dañoo bëgg a xam yow ba xam yaa ngi xaalis boo xam ne su la joxee sunum xaalis dana lewam déet ndax ku yorul xaalis boo ko joxee xaalis léeg-léeg bu fa ngor nekkut ñaar loxo lay tibbi léegi da nga indi nangami million million yooyu ñu xame ci loolu benn ñaaral ba it <coughs> ñaaral ba Oustaz Alioune mm-hmm. bulletin yi ñuy defar ñu defaral la ko ci ndax duñ génn ci kàggu gafak ak réew mi defal la ci bulletin yaay indi xaay bi lay defaral say bulletin buñ la wateelee nga jàll xayrun buñ la wateelul nag say bulletin maire gox boo xamee ko caaf hmm. lu mooy question bi lee mooy parrainage bi lii mooy question bi tabarkalla tabarkalla macha allah sëñ Mbacke. waaw kay yaakaar naa euh, yaatu na te am na solo. am na solo waaye oustaz parrainage daa mel ne moom dafay nekkoon te daanuñ ko dégg. Mhm. am ñenn ñu ñu ko jagleeloon. bu ci coow li amee mooy li ñu ko bëgg jël mu mel ne maasale ko ñëpp nag bii yoon. Mhm. ñu jàpp ne am na lu ci rax bañ mhm. maasale ko ñii ñëpp loo jàpp ne moo tax ñu war koo indi léegi te nit bu njëkkoon am ñu ko moomoon rek mooy ñu amut parti te bëgg doon i candidat. waaw xam nga parti weesu nag fi war na yem. wax naa la ne parti su bari ba bari cim réew kat la war a doon su bari ba bari surtout réew ndaw mais ñetti téeméer yu manqué tuuti fokk nu seet loo xam ne bu ci ñëpp d'accordé te mu leer galgal yi dañ mooy tax nu mën a am parti yoo xam ne bu ñu dem élection mën nañoo ñàkk a sonn benn coono bi mën nañoo ñàkk a bari benn bi loolu mooy lu ille bu defee nag ak fiir ak tiqaati nag su boobaa mën naa jur ñol-ñol ci pénc bi hmm. waaw loolu tax mu nekkoon fi doon xaar waaw am na bëri loi yoo xam ne mi ngi woon ci pénc bi noonu nag tërali loi te doon ko doxal moo ëpp ci noonu tërali loi ba noppi doxal ko wax naa la ay am nay réew ci àdduna si yu bari yoo xam ne mat nañ juróom-ñaar ba juróom-ñett nee na ñoom dootuñu ñu séminaire lu ñuy def lu ñuy defati con séminaire hmm. lu ñuy def mooy dañ ñëw ci séminaire yi Sénégal def àbb ci benn mbaa ñaan ci benn dem ñoom doxal ko ndax baax na rafet na jub na. Sénégal na day day xalaat waaye du appliqué. <laughs> ñoom ñu appliqué. boo fekkoon suñu séminaire ba noonu conseil économique yi. Hmm. noo xam-xam yoo fa doon génn dama doon tiit. seen naara ci télé bi. ah ngay ngay ñàng ñànglu <laughs> c'est bon euh, waaw mais loolu am na solo. mais pourtant bu bu njëkk man li ma li ma doon gis. Hmm. xam nga da nekk ci parti bi. Hmm. ñu génnee la nga mer. dem ànd say groupe dem bootu ci Mbàkke si la Mbàkke àll àll récépissé nga dem ci élection man cee gagné. Mm-hmm. yaakaar naa partie bi fi nekk sax euh, affaire gi sax euh, ci ci njëlbeenam xaw na demee noonu. Mm-hmm. léegi lu tax ñu dem ba léegi ñu ne kon nañ fi jëlee lu wax parti yee bari wala daaray lëg la. waaw mooy li ma la junj léegi rek. parti yee bari wala wala ay ndëgg sax. loolu <laughs> nag mën na ci am xam nga euh, ni ma ko waxoon suñu mbàkk bi mm-hmm. mooy penc mi dañoo bokk benn école bokk benn maître euh, ne ci penc mi nag di xëccoo mm-hmm. moo tax lu ci waay di bëgg def rek morom ja jaxaw na koo xam mm-hmm. mais Oustaz ni parti yi bare nii boo seetloo élection présidentielle yi ñu génn candidat yi bari woon nañ. boo seetloo yi ko jiitu euh, ba ca 2000 sax candidat yi bari woon nañ. Mhm. te itam lii daa mel ne euh, nekkagul woon loi boo xam ne wate nañ ko ba noppi. Mhm. loi bi fi nekkoon mooy candidat yi nga xamante ne amuñu parti ñoom la ñuy laaj mille signatures yooyu. Mhm. ñu wut ko ci gox yu bokkut. ci li ministre bi wax démb wax na nag boo gisee ñu euh, bëgg koo def dañoo bëgg a yemale ñëpp nga xam ne ku ne ci parti ak ku ne ci yëpp ñooy ak ku nekku ci parti yëpp ñooy yem wuti signature yooyu. Mm-hmm. Eh, oustaz baa loolu gannaaw mën naa doon ak fiir koo xam ne mën nañoo jékki-jékki ne oustaz kat signature mi moom matut moo tax du bokk te itam du am fu mu ko jooytoo bu boobaa mm-hmm. maanaam bañoon koo def te bàyyi rek eh, ñu sumbuxloo indi question bi nit ñi tànn ki ñu ki ñu war a wateel gën ta nopp la gën ta neex eh, moo gën a neex layal moo gën a neex a man ko dama laa wax ne na doon yoon wu ñu jaar escalier bu ñuy jaar mm. pour suñu parti ñu limité leen mm-hmm. mu leer nañ ñi nga xam ne ñi koy saytu du doon groupe buy tëju seen néeg génne benn affaire. Hmm. day doon loo xam ne parti yëpp koy bokk. mais ñoom daa mel ni jubluwuñ ci limité parti yi de. waaw parti parti yëpp koy ah, ah kay parce que su boobaa. Hmm. koo xam ne kii li nga indi matul xam nga comme da ngay toog. loolu dana dana dana dana limité parti ah, dana dana wàññi ay parti mën a wàññi affaire yi te kenn la ci mere ndax ñaari cam ñaari campagne lay doon xam nga ne hmm. campagne euh, signataires yi. Mhm. ak campagne élection yi kon ñaari ñaari campagne lay doon moo tax daal su ko mbooloo mépp tiime ndax bu ñu tollee ci wàllu élection dañuy bëgg ñi ci opposition ak ñi ci euh, pouvoir bi ñoom ñëpp ñu bokk di toog ba nas dara ba d'accord ci na dara ji nas nañ ko ñu teg ko la jàll ci beneen. Mhm. waaw kenn bañ di santaane lu kenn mënut waaye kenn bi bañ di gàntu loo man Mhm. xanaa ba état bi di woote waxtaan kon dafa fekk ne lii la namoon maanaam bam naan dama yee damaa bëgg ñu dialogué nañ ñëw toog waxtaan opposition bi di bañ damaa gis waxtaan woowu amut ni mu waroon a amee te téewul ñoom ñi ngi tàmbalee dugal yi ñu war a dugal te ñoo doole assemblée bu ñu ko fa mu jàll waaw eh, fi toll nii nii est ce que lañ soxla dëgg-dëgg oustaz ndax loolu itam wàññim parti la xuma wàññim candidat xuma galgal ci ñi ci bëgg a dindi la wala déet ndax 2012 bii jàll am na candidat yoo xamante ne ci loolu lañ leen xañe woon seenu ñàkk a nekk candidat mhm. maanaam jubu na leen nii Eh, sëñ Mbàkke ma wax ko ci penc mee war a toog ñi bëgg a toog ci fauteuil bi ak ñi nga xam ne ñoo ci toog dañuy nangoo toog dañuy nangoo toog mais toog ci boppam bul indi sa programme bopp ñu toog waaw kee tam bu mu indi programme boppam ne fii la toog dañu ñëw rek à zéro bu ñëwee kenn ku ne ñëw a zéro ak xool bu feex ta bu leer nañ buñ ñu waxtaanee jubóo. bu ñuy geddee du baax. bu ñuy wootee ba noppi fab ay teg du baax bu ndëgg sërëx amee du baax. ndax ndëgg sërëx euh, société civile soxlawu ko. waaye man soxla rek mooy. nu teg lu leer nañ. loo xam ne ñëppay xam ne lii leer na. bu ñu élection yi ba ngoon ñëpp xëy liggéey. waaye bu amee lenn lu ci ñug ñugal rek nit mën naa kalaamitu ci ñug ñugal boobee ba def loo xam ne du du gën du gënal réew mi. waaw lépp nag Ousmane xaar naa ni ci wàllu toog waxtaan boobu ñuy ñàkkal solo yaakaar naa ni moo moo doon moo doon régler problème bi ñu. mu lay wa amruhum shura ki wo waaw baynahum léegi Mbacke hmm. ki woote am na am am na ay tomb yu tax mu ni kaay leen waxtaan ci. Hmm. yow mi war a wuy ji war nga yóbbaale see tomb ni boole ci yii mais ñëwal nga ni ñëw. du mm. mm. benn ñëwal du ma ñëw ndax damaa bëgg a ndax. Mm. manque de confiance mag ñàkk de wóolonte googu. Ah, bu fekk dañ ko suuxat ba loolu sax fi ko garab. waaw kon du ngeen rey sama nag bu seen lu ñul dem. waaw bu dee kii woote moom wooteeg bañ a wootee ci yam li mu fas yéene mu jàll moom dana ko jàllale. woote gi da koo formuler rek ndax wan bëgg a wane ne woote woon na. Mm-hmm. man buñ gàntoo itam du tee dana jàll. boobaa kay wujjee bañ a ah, bu boobaa nag bu boobaa nag dana fi doole la nag. Ah. en tout cas euh, sëñ Mbàkke <laughs> Afrique liñ ci wax ci démocratie Serigne Cheikh daan na wax ne ci baat yim mu la bokk démocratie Serigne Cheikh daan na wax ne ci baat yi mu xamagut lu muy firi la bokk mooy nag te dégg naa tubaab <laughs> mu ne ndaxte li ñuy wax ni mooy démocratie niñ koy firee dafa bukkut ak niñ koy doxale loolu yëf yi mm. donc ñi ne ci nguur gi ak ñi bëgg na ci nguur gi ñi nga xam ne ñooy bëgg ñi ne ci nguur gi toog ak ñi nga xam ne ñoo bëgg ñi toogul toog ñoom ñëpp war a toog bokk lépp kenn bañ a denc ci sa ginnaaw dara ñi ci nguur gi bu ñuy woote ñu ñeme c'est-à-dire politique dañ koy ñeme sasalil mm-hmm. débat politique moom ndoxum fajar boo ko ñëmut doo julli fajar. waaw doo ko laal de. te mu ngi doo isit moom koy ñeme. débat politique dañ koy ñeme. ñu replongé saa sa dama am benn silsila bu ma bu may def euh, fële ca euh, Daaru Cuub ci ci xutba. Mhm. al euh, maanaam xeex bi nde dokk diggante ak seytaan ak insaan. waaw ma ne yàlla dafa ñeme débat moo ko ciy génne. waaw. face à face waaw. Mhm. day wax day bay iblis mu wax ba doyal. waaw koy mu tontu la aqudanna danaa def nangam danaa def nang sunu borom sañ Mbàkke mënoon na ko fii média d'état la doo fi doo fi waxee mënoon na ko alxuraan média d'état la mais sunu borom dafa def alxuraan mu média privé ne ko Iblis kaay nga wax li nga bëgg a wax soo paree ma wax waaw face à face ngoog waaw Iblis daal ne la ahtani kanna durriyata illa qalilan nangam nangam mun na ko dem aca wala atyanahum la am la an na minka waaw waaw kon nag dox la ñu dem. mu jax kon média xam nga kon. débat politique sëñ Mbàkke. dañ koy ñeme. ke ci nguur gi. toog ci chaise bi. boo ragalee dara rek duñ dem. boo ci ragalee duñ dem. ñeme ko. il faut ngay déglu. waaw il faut ngay nga xam ne soo ko ñemee. soo amoon menn mandat. te dem ñëpp naan ayya. du gàcca Alaaji Mansour mbay mii nga xam ne tey dafa dafa dafa day wax day wax day communiquer communiquer traditionnel. Mm. Alaaji Mansour mu mu ñëpp <laughs> mu ñëpp laa ko tuddee <laughs> day wax ne. Euh, mbër mi ci làmb ji ak fas course wi ci làmb ji. Mm. ku ci dem ba rawatoo door a bàyyi kenn du la tudd. waaye dem ba ci digg bi daan daan cëpp daal di bàyyi. Mm. sëñ Mbàkke. foofu la affaire bi nekk foofu la affaire bi nekk. Ah, yow yaay yaay nekk débat kon nag léegi sunu réew daal li bëgg. Mm-hmm. mooy ñemeel débat. liñ la fale ne ca. Mm-hmm. su fekkee mandat yi na nga toog. waaw xas. defal nganu waaye nag du gàcce daal bis boo ragalee débat bi rek boo dugalee ay galgal ak kalma ñangaan ñoom seen yooyu c'est-à-dire am loolu tam bala ngay hmm. day fekk nga am idéologie hmm. bari bu ñu amee boo di défendre sa idéologie hmm. jamono bu bëgg bañ ko bëgg bëgg a boulevard sa yow di xam ne sa idéologie mooy lii mais parti yu bari amuñu idéologie dama am benn baale ma nangama nangama damay bañ wax sax fokkee ma ci boole moo xaw am ñu mu a jóg ma jóg yi loolu la boole leen ma ci. Hmm. tam tax idéologie am. mais am na benn lañ mën a bëgg a teg doftal foofu. Hmm. léegi ci ci wàllu lu mu tudd li ma njëkk a léegi. lan la parrainage waaw hmm. parrainage. léegi nee nañ projet la boo xam ne ñu koy yóbbu assemblée. opposition bi nee na. buntu assemblée leen di fekk. seen bakkan lañ ci teg. kenn du ko fa mel ne ñu ngi bëgg a dekkal M23. d' accord léegi est ce que bu concertation amoon bu yàgg ba léegi lii na am. waaw ci wàllu pénc. M23 dafa am lu ko juróon fi ne leneen a waroon judduwaat moo yanamaar dafa am lu leen di jur danaa ko wax suñu mbàkk léeg-léeg ab daawa day am leadership mais li koy li jur leadership bi du moom mooy samp nay dox mbàgg mu ne ko cëpp voilà indi ko mm-hmm. indi ko mm-hmm. donc dañ koy wateeg duñ ko watte danañ fa dem ak ñu fa dem mm-hmm. loola penc maa ngi xaar waaw mm-hmm. ñoom daal bu ñu amee la leen la leen la leen ñoroon keroog. Mm-hmm. bu leen ñoraatee. xaw ma 24 la ñu 24. 23 M 24 la ñuy tudd xaw ma M 25. <laughs> Mm-hmm. waaye la leen ñoroon bu leen ñoraatee. bu ñuy génn ci penc mi kenn doon wax ne kaay lañ génn yow tam ñëwal. bu mu ñor parti politique yi rek na na ñor askan rek. waaw Mbacke est-ce que tam da wax ni wala wala <laughs> il faut ñu xaar beneen slogan bu ñëw. déedéet damaa wax ne li leen jud li leen tax ñu judd. saa bu loolu amee rek mu judduwaat. Mm-hmm. loolu laa bëgg a wax. Euh, euh, jërëjëf xam naa ko loolu mooy oustaz sax li ngay wax noonu. bu dee looloo amaat mu judduwaat ndax bu ñu fàttaliku loola la ko juróon. Mm-hmm. lu mel nii la woon. waaw Eh, ay élection moo jub si woon ñu indi loi boo xamante ne ku am nangam pour cent daal di jàll nekk président. Hmm. ñu gis ne maître Wade mi fi nekkoon doomam lay xàllal yoon ndax bëgg mu yomb Sénégalais yëpp xëy ne loolu du am. Hmm. te itam ñu gis ne présidence bi bu bu bu jàllee. Hmm. am na ñoo xamante ne jàpp nañ ne mën nañ leen cee seppi am ñoo xam ne sax nee ñoom jàpp nañu ne signature yooyu man nañ koo am. mais dañoo gis ne du maandu te itam du lu jub ci élection yi. te oustaz li ñu li ñu dëxëñ ci élection yi maanaam ñeel ko mu ñeel parti bi gouverner dafa bari. ci yoo xamante ne wax di yàlla waxtaanewuñ lenn muy lu jëm ci ministre bi yor wàllu élection yi ak taxawaayam bi mu ci fas yéenee am ak kàddu yi mu ci yëkkati lu jëm ci wàllu euh, lañ fi defoon ci assise nationale ya te président mi euh, tegoon ci loxoom rafetlu ko te ba mu faloo itam daanaka loola point la yu ñu bàyyi mu jàll bii biitim ñëw dolleeku ci maanaam ñuy dank di fanaanal rek buñ demee mars rek ñu ne alkaati yi dañoo génn gaa yi ñemewuñ dañoo daw tey ba baa bu yàggee du indi ak jéngu boo xam ne rapport de force yooyu baaxul ci réew mi loolu laa lay wax loolu laa lay wax gis nga doxin wi dox ba nga xam ne moo juróon ñaanamaar dox bi doon dox ba juróon M23 loolu laa la wax ni xeet wi ci seen bopp ñooy dem bu njëgee loolu kenn du leen woo ak daxtu laa niyaah yi arab yi ñoo xam ne yu addi ilal infijaar boo boo boo boo boo boo njattee muus mi muus ci ci néeg bi ci sa kaw lay jaar léegi nag est-ce que loolu bu àgg nañ ci àgguñ ci ñi nga xam ne ñooy diagnostiqué ni société yi doxee àgg nañ fa moom mm. koy togg ci ci serveur nit ñi loolu laay wax ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy mm. ni aw xeet di doxee mm. ñoom ñooy ñooy gis ne loolu jot na bu jotee nag muruq ja du woote <laughs> paate du woote galaay du woote ñëpp yëg ne de de devoir civil civil la xaw ni ñu koy soxla di ñu ñu ñu génnandoo ñoom ñëpp <laughs> waaye gis nga su loolu nekkul ci ci penc mi tam sëñ Mbàkke loo woote woote woote woote mën naa am li doon am du am waaw waaw bu ñu ko sentirul moo tax kon ñu ne ci kaw li nga wax léegi sëñ Mbàkke mhm. ñooñu nañ fexe ba loolu mu am mhm. cest à comme xeet wi mhm. mën naa àgg fa mu am àgg fa ne fii day génnal boppam bu ñu ko waxee bu ñu ko woowut ñoom nañ liggéey ci xeet wi bu mu am loo bu loolu am waaw maanaam def defi lii dama koy def ndax doole la lii dama koy def ci maa tey lii dama koy def ci dàngam loolu mooy def xeet bi daal di génnal boppam mhm. bu loolu amul nag lu coow li bari bari xeet bi mën naa ñàkk a génn moom sax may laaj Mbaye sëñ hmm. euh, que ce que politiciens yi euh, lire nañu message askan wi par rapport ak ñoom seen message ak seen incarnation ak seen seen campagne seen façon campagne nga xam ne Sénégal lépp lu ko ñun moo koy fajal boppam suñ góor ga Euh, maître Wade dafa ne woon nguur ak xaalis day jaxasam xel nguur day jaxasam xel ñu ne ko mu ne xaalis di ñu wax seen xel mu ne booleen booleen nag raatukaan ndeysaan defe naa de. waaw wax jam solo la. ah solo la. Mbacke. daf ne xaalis. waaw ndax day xel. ndax ne ku amagut ñaare ni ngay xalaate du bokk ak ku ko am. très bien. <laughs> mu ne ngóor day naxalam xel. booleel <laughs> boole ñoom ñaar da ngay raatukaan. dëgg la gars yi ci mbooy gi moom bu ñu la analyser rek nga ne ëskay. <laughs> waaye bari na ñu daan analyser ngay fettasu. ñu bokkee fi mu ne. ña nga ne ceel. donc gone ma gone kii loolu loolu loolu leçon bu rëy. Mm, mm. mooy sëñ sëñ Mbàkke. Mm. da nga gis léeg-léeg ab wax nangam def nangam da nga naan waaw. lii nii yow ci sa bopp rek. da ngay analyser. génn ci. Mm-hmm. ci nu mu ko mën a defee. ci nu ko mën a defee. ak nu mu ko mën a léegi nag su boobaa kon la mu doon wax ne kon pouvoir day neexul mbaa ko jàpp. voilà parce que affaire bi dafa neex. te itam yëgal ne. Mhm. soo xasee ne man la ba gaay ne yow la. Mhm. du too demale sam xel léegi xelu gaay ngay demee. Mhm. léegi la nga fal Oustaz Alioune Mbaye te moom du doxal. li ko wër. àtteem mooy doxal. waaye du ay mbay ci boppam. loolu nag léeg-léeg ci politique ak ñoom seen yooyu dafa am solo. li nga xam ne ñoo la wër ñoom daanaka mën nga ne ñoom ñooy doxal lii ëpp naa def lii mënoo ko ñàkk def. lii ëpp naa def lii mënoo ko ñàkk def ba nga xëy téye sa sikkim. doo xam fooy teg sa baaraam. loolu lu ci am solo la seen bàkk. c'est important ça euh, xam naa